sant yàlla bu baax a baax a baax te ci yonante bi maa ngi jël nuyu gu ànd ak cofeel gu bari ak warma gu amul fu mu em di ko jébbal xalif bi muy Cheikh Mahi Niass di ci toftal Cheikh Macky Niass ak imam Cheikh Tidiane Cissé ak Cheikh Mahdi ñas ak Cheikh Mahi Cissé di ko awale ci moom di nuyu njaboot gi yëpp ak taalibe yi rawatina nag gan yi nga xamante ne ñëw nañu teew ci bés bi te ji bés bu mag ñëw ci bërëb goo xam ne tamit tawféex ju bari ngi fi porte parole ba wax na ko sànq fii taw fii rek fi am te loolu moo tax xam naa ne am na ñu yàkkamtoon ma ñëw fii waaye nag maa leen gënoon yàkkamte foofu maa ngi ko doon wax sànq xalif bi bi ma njëkkee fëgg ci bunt bi dañ ma yëgaloon ne dafa demoon ma toogaat diir fëggaat ñu ne ma bu ma jógee umra dafa jaar Maroc loolu xawoon yéexal nag yoon wi waaye sama xel mosu fee jóg ci yéen gi ma amoon ñëw ziyaare ko ndokkale ko te ñaan ko mu ñaanal Sénégal ñaanal ma ndax soxla naa ko te Sénégal soxla na ko te su ma ko sakkoo ko fi mu war a sakkoo kon ñas maa ngi lay sant bu baax a baax ci muñ gi ak nu mu ñu yombalalee mbir mi mettre ñu ci à tamit ba ñu mottale ko ci aafiya ba yàlla may ñu tal ak fekke ak tawfeex bu ñu mottale yéene gi muy teew gu ñu teew fii tey fii nag dama fi am ay xarit yu bari am fi ay soppi te soppe yi li tax ma sopp leen mooy ni ma sopp Cheikh Ibrahima Niass loolu ñi ma jege xam nañ ko ci man te lu yàgg la te xëy na dama ci sori lool waaye am nañu ko xam ci man te xam nañ ne lu sori la ci man te xam nañu tamit sama roy waaye ci lu mu jàngale ak lu mu andi ci fayadu ak surtout ci taxawaay gu mu am ba jéggi Sénégal dem Afrique defar ay nit fii defar nit fu génn Sénégal muy patriotisme doo côté ak panafricanisme de l'autre lépp lalu nag ci xam-xam gooman xam ne kenn mosu ko ci mën a euh, challenge maanaam mu wax nit dindi ko ba am ci dëgg ci moom ndax li ko yàlla mooy ci xam-xam gu xóot boo xamante ne bàyyi na ko kon wax naa la ko sànq nee naa dafa am lu ñu gëm laata yàlla di ñu natoo nguur te fas yéene ko wéy dikk bu gëm tànk yàlla ñu bàyyi ci nguur te buñ fi jógee ñuy ñaan yàlla mu baaxee ñu ñu continuer di ko gëm mooy diine gi nekk ci ñun ñu góor góorgóorlu saa su ne waaye gëm na tamit liy defar réew diine ci ëpp wàll ndax gëm-gëm moo jiitu lu ne te liy defar réew ci doomu aadama yi lay jaar ci liy defar doomu aadama yi ci diine la ndax yàlla bu wàccee doomu aadama lu mu ci toftal mooy wàcce tegal ko woon gi nga xamante ne moom la war a toogee ci biir suuf te loolu diine ñu wax naka la mel kon ñëpp ñoo xamante ne teewal nañu fi diine am responsabilité yu wéyal jàngale mag yi jàngale diine waaye tamit wan nit ñi royukaay ci ñi nga xamante ne ay kàngam lañu ci diine gi ñun suñu responsabilité mooy may leen ci gu mat sëkk wormal leen taxaw leen taxawaay gu wër ndax mission bi diis na te ñun ñoo leen ci war jàppale ñun ñu yàlla nattoo ñu féete ci kaw ci wàllu àdduna muy réew mi waaye jookoo gi war am ci diggante diine ak e, gouvernement bi muy état ñun lu ñu assumer la ndax doonte état bi laïque la ñun suñu conception laïcité nekkul ne yoon nu état nekkul ci diine gisewuñ ko noonu li ñu gëm mooy boo nekkee njiitum réew mi nga xamante ne nee nañu quatre vingt pour cent yi ak jullit lañu dix pour cent yi des gëm leneen kon cent pour cent yëpp ay woy gëm lañu ba tax na liberté de culte maanaam gëm dara di ko fësal bi leen constitution garantie ñun ñuy waat ne constitution boobu ñun dañ ko war a respecté ba pare di wattandiku ñëpp respecté ko muy loi moo tax ba képp kuy dem ci bërëb yoo xamante ne da nga fa bëgg a jaamoo yàlla ci anam yi nga tànn suñu responsabilité mooy ñu yombalal la ko ba boo fa demee nga ànd fa tawféex ak dal gu tax nga mën ko matal kon liggéey am na fi am nañu lu ñu waxtaanee sànq incha allahu rabbi dinaa ci taxaw taxawaay gu mat ndax yoon woowu yoon gu ñu gëm la waaye li nga xamante nag ci wàllu infrastructure la ci wàllu bërëb gi la luñ ko war a defaree bëgg ñëpp ñi fiy ñëw di jóge bitim réew ñuy jóge fu ne ci biir Sénégal daw ñëw si fii ci jamono ji ak ci yeneen jamono incha allahu rabbi taxawaay gi dina mat kon di delluwaat di tàllal sama loxo en tant que njiitum réew mi di sàkku ñas ngeen ñaanal réew mi ndax réew mi soxla nay ñaan di sàkku nga ñaanal njiitu réew mi ba doon ak gouvernement bi mu ci àndal ndax ñu am ndam ndax suñu ndam mooy ndamal Sénégal bu fekkee ne réew mi am na dal am jàmm ñu doxal ci jub jubal ak jubbanti bu ñu woote kon xëy na lu bari fi jafe balaa muy yàgg dinañ ko mën a dépasser gis nañu lii xew ci réew mi ci fan yi ñu nekk mu doon lu tiis ci ñun doon lu metti ci ñun waaye mu doon loo xamante ne nag suñu responsabilité ñu ànd ci saafara te ñu fas yéen ko taxawee ba mu mat sëkk kon ñëw gi ma ñëw fii wax naa ko ci sama njëlbeenu kàddu moom laay tëje mbégte ak contentement gu mat sëkk sëkk sëkk laa ci am ndax ci fi ma Cheikh Ibrahima Niass toll ak ci ni ma amee worma ak cofeel ci njaboot gi nga xamante ne yow la yàlla teg ci kaw yay xalif général incha allah fii ci Medina Baye kon jàppalante gi ma bëgg ci diggante kër diine yépp rawatina fii ak gouvernement bi wax naa ne ñëw nañu cinq mois am nañ lu ñu garal ba fexe ba def ko waaye bi semaine bi jeexee ba semaine yi di ñëw dina am kenn koo xamante ni man fas yéene naa ko tabbate waxtaan naa ci moom ba pare dina dox dem ci kër diine yépp jël seen xalaat ci ni ñu waxe woon ne dañu war di jël seen xalaat ci lépp lu ñuy doxal sàkku ci seen ñaan ak seeni joyanti ba bu amee ngeen mën ci waxtaan ak taalibe yi ndax ñu mën a comprendre ñun fan lañ bëgg a dem jàppale ñu kooku dina door liggéeyam ci lu nu mu gën a gaawee ba balaa déwén lépp loo xamante ne mataluñ ko ñu gën ci góor góorgóorlu pour matal ko ci lépp loo xamante tamit war nañ ko sumb wala ñu sumb ko te matagul ñu fexe nuñ ko sumbee wala ñu matalee ko noonu kon lii laa bëggoon yëkkati ci kàddu di sant ñëpp ci teewlu bi di jégalu nag ci xaar gi ndax am na ñoo xamante ne yàkkamti woon nañ ma fi te xaaroon nañ ma fi xaar googu laay jéeglu ndax amoon naa yéene ci njëlbeen ñëwoon fi waaye nag xat-xatu calendrier ak ni nga nekkul ci réew mi moo waraloon gannaaw leneen dugg ci ba mu yàggee nii salaamaaleykum wa rahmatullah